nous sommes euh, là aujourd'hui pour faire euh, notre quatrième édition de Dondonogu concernant euh, le volet social de la Fondation Kosselder. Fondation Kosselder li ñu ci mën a xam que ni fondation bu bu taxaw ngir jàppale askan la fondation boo nga xam te dafa ñëw pour dimbali ñi nga xam te nii seen loxo jot seen ginnaaw surtout si volet sanitaire bi nga xam te ni moo tax ñu taxawal ko ngir jàppale ñi nga xam ni feebar nañ nekk hôpital seen loxo jot seen ginnaaw. ñu mën leen a jàppale gunge leen si ordonnance ñeneen ñi nga xamante tam feebar nañu nek seen i kër te mënuñoo am mooy yi ñu mën a demee hôpital ñu fekk si leen seen i kër saafoonteeg ñoom xam li leen di metti ak euh, yan yan solution lañu si mën a apporter ñu jox si jéego yooyu noonu ba apporter leen une solution si seen feebar bi moo doon suñ quatrième édition et euh, on a on a réussi vraiment les choses ñoo ngi nii yaa ngi gis jigéen ñi ak góor ñi ànd si ngir préparer li nga xam te ni moom mooy euh, ndog yi ñu war a mën a te dog yi tey yàlla dañ see wërsëgale ñu def benn avancement boo xamante ni dépassé na li nga xamante ni moom la moom la ñu moom ñu moom la ñu jëloon euh, càmbar ko ba ne lii nii moom la ñu waroon a mën a def kon boog tey am nañ satisfaction totale de lépp lu ñu defoon daaw lañ ko doublé ren euh, def nañ loo xamante ni ñu ko daaw mooy que ni daaw ay ganaar lañ defoon mais ren yàlla dimbali nañu ba ñu euh, jënd xar ba mun ko rey kon boo ko ñoo gis ne li ñuy def ñi ngi ko seqal bokk ko di ko def ñoom am nañ si benn comment dire benn yëg-yëg boo xamante ko mu doon ndaw kon boo ko mën wax atteindre suñu objectif petit à petit voilà te itam si euh, kanam li ñu envisagé def ko yëpp dinañ ko mën réussir incha parce que nous nañ ne bloc bu nekk si si fondation bi doon na bloc bu soudé donc nous travaillons plus donc qui parle de, donc, de mois de ramadan aussi parle de partage parle de partage parle de solidarité et aujourd'hui donc comme le président l'a dit nous sommes à notre quatrième année donc nous avons doublé toutes les dépenses si vous avez vu nous avons maintenant

nga def ko avec yene bañ ci xol leneen. ndogu bo xamante ci si luñ ko lu euh, wa hôpital malade ya fa nek ak euh, ñi nga xamante ci si ñoo nek ci tali bi te ndog fekk leen ci yoon bi te ñoo dox seen koor wala ndog li mom ñoon lañ ñoo lañ ko jaglel bon chaque année nag nii lay demee café gi daanaka ci sama loxo lay nekk voilà ma ma ciy def li ma ci mën ak lu ma ci mënut voilà di sant ñëpp ñu nekk ci fondation bi yëpp gis nañ taxawaay bi rafet na voilà di leen ñaan rek ñu gën a yokk seen taxawaay bonne volonté yi nekk ci yëpp ñu ngi leen ciy woo waaw gis nañ tamit seen taxawaay ndax heure bu ñu soxlaa aussi dem ci ñoom it ñu feeñal seen yéene ci mbir yi waaw dañ leen di ñaan rek ñu gën a yokk seen loxo rek gën a feeñal seen seen seen yéene ci ci mbir yi. appel lu may njëkk dama koy def appel interne c'est-à-dire ci biir fondation bi. woowaat ñi nga xamné ñoy ñu parce que depuis le début gis nañ yombul mais ñoo ci décarcasser wu pour réaliser li nga euh, le meilleur ba tay am niveau ni niveau bu maximal la si suñu su suñu suñu euh appel bi que ni ñi nga ni ñoo ñoo nek suñu biir di ñu di nous, ku ci Baye Zalgay ku ci Baye As ku ci euh, ku ci euh, comment dirais mendi.

dinañ am une solennité boo xamante ni dinañ permettre ñun lépp li nga xamante ni dinañ ko jéem a dox si wàllum collaboration avec yeneen kuréel yoo xamante ni ñoo ñu gën a kawe ñu mën ko am si lu gën a yomb. gàcce nga la ma nga la